fait kaawu Lat Diop dafa nekk kaa boo xamante ni dafa doy waar parce que yow tu ne peux en fait conflit d'intérêt sax dafay posé wu ci kaawu Lat Diop tu ne peux pas directeur général d'une société ba pare maanaam créer yeneen entreprise ci biir société bi di créer ay marché pour entreprise yooyu noonu ba pare di ko jox sa bopp yow Lat Diop c'est un cas parmi les cas ndax Lat Diop male leen leeral ni dafa amoon ñaari société yoo xamante ni daf ko créé woon biir te ñaari société yooyu moom moo koy contrôler moom mooy créer marché yi moom moo koy jox boppam maanaam mooy créer marché yi mooy gagner marché yi moo moom société bi am ay partenaires yoo xamante ne ñenn ñi que de nom lañu ñeneen ñi keneen ki c'est un français boo xamante ni meilleur ami wam la yow yaa moom société yow yow yaay directeur général société publique nga créer yeneen société ci biir yow yaay uti ji en ay partenaire pour ces société marché bu gañe bu ñëwee tamit yow yaa koy gañe maanaam kaaw la Jóob dafa doy parce que dañ naan one x bit moo feeñagum moo feeñagum waaye c'est pas pour rien ñu téye ko ci yoon parce que enquête bi lu muy gën di dem yeneen di gën a feeñ wanik si bit moo feeñagum si kaawu Lat Diop te xool leen di ngeen dégg kaawu suñu bit suñu bit dina ñëw di ngeen dégg kaawu suñu bit jamono ji kaawu wanik si bit lañ koy toppee plainte bi ak keex eh, ñoom ñaar ay xarit lañu woon nekkoon ay partenaire jékki-jékki problème am seen diggante boobu one x la waaye suñu bit mi ngi ñëw te suñu bit moo gën a garaaw maanaam Lat Diop cas sur cas te xoolal mel bit waxuma en dafa am one x bit am suñu bit am mel bit one x bit ji bii jamono ji jamono jii ñu ngi ko koy toppee léegi wan bit dina ñëw waaye suñu bit tamit problème dina ñëw suñu bit dina ñëw mel bit mel bit bi ma leen doon wax léegi bu ngeen seddloo walla bu ngeen bàyyee xel ay jamono ay jamono euh, PMU la la la la suñu suñu suñu tonton yee wala suñu papa yi wala suñu maam yi xamoon PMU PMU PMU xam ngeen lu yàgg la PMU lu yàgg la waaye Melbit moo fi jëlee PMU temps waaw léegi je disais Maître Bit moo fi jëlee PMU Melbit moo fi jëlee PMU PMU dañ ko fi jëlee andi Melbit te Melbit benn benn benn benn euh, euh, française la en fait benn nit la d'origine française moo nekk en collaboration ak Lat Diop moo nekk en collaboration ak Lat Diop ñu daal ñëw taxawal Melbit bii ma leen di wax ñoom ñaar ñu koy gérer ndoo ensemble di ci gagné nag ay milliards et des milliards maanaam buñ la doon wax ñoom chiffre d'affaires biñ doon wala bénéfice biñ doon am ci mel bit boobu noonu nga xamante ni tey dañ fay jëlee PMU andi ko fi xel xalaatu ko mun andi nag benn conflit d'intérêt biir Lonase Parce que tu ne peux pas être directeur général d'une société publique créer yeneen entreprise ci biir société bi wala booy joxe marché wala nga nekk en partenariat ak yeneen société te yow en réalité actionnaire nga ci société yooyu noonu te booy joxe marché sa bopp ngay sédd Lat Diop en fait il a des choses à éclaircir li mu war a li mu war a leeral ci bopp sénégalais yi moo bëri li war a leeral ci bopp sénégalais yi moo bëri dañ naan la Guédiawaye FC nan la ko géré woon bi mu nekkee ministère de sports nan la ko géré woon parce que en fait Dan Diop moo nekkoon nit koo xamante ni en six mois wala en huit mois dalay tabaxal immeuble immeuble sur immeuble ñu naan la immeuble bii Lat Diop ko moom immeuble bii Lat Diop ko moom immeuble bii Lat Diop ko moom te en six mois huit mois la kay tabax xaalis boobu noonu fan la ko jëlee fan la ko jëlee ñun xam nañ ni yoroo machine buy defar xaalis léegi yow noo ko lijjantee l'argent du contribuable lañ la dénkoon tu de des comptes à nous rendre gaañ il faut nga rendre ñu ay comptes loolu mënut a ñàkk foofu la ñu tolloog yow. foofu la ñu tolloog yow te maa ngi fàttaliku en deux mille vingt deux Lat Diop daf ne woon defoon na benn chiffre d'affaires bu toll ci deux cent soixante six de francs CFA. ñu naan c'est un travailleur c'est un bosseur xool leen lii mu def exploit la biir Lonase waaye xam nga fan la mu mujjee nit ñi deux cent soixante six milliards de francs fa de chiffre d'affaires mu ne bi mu fayee partenaires yi fay employés yi génne dépenses yi trois milliards de francs CFA la dese loolu yëpp ay question la yoo xamante ni daf ko war a tontu Lat Diop c'est lool en fait dooy foo moo ko téye fële de dafa war a tontu ay question loolu 2022 laa leen wax de 2023 Lat Diop ne euh, l'ONAS 16 milliards de francs CFA la soxla ci chiffre d'affaires la soxla maanaam dafa soxla woon benn euh, xaalis gu toll ci seize milliards de francs CFA mais nee na euh, Lonase bi mu paree quatorze milliards kese la amoon douze milliards la amoon léegi maanaam euh, Lonase amoon benn gabu quatre milliards de francs CFA boo xamante ni waroon na ko lijjanti yooyu yëpp nekk ay problème yoo xamante ni Lat Diop war nañu ko leeral au-delà de ça au-delà de sa Lat Diop ci wàllum politique lan la fi def Lat Diop ban base politique la fi am poste yooyu yëpp ñu ko joxoon pour lan la woon ndax lan dafa amoon proximité ak le couple présidentiel ils vont tous répondre de leurs actes ils vont tous de leurs actes te koo ci wax rek mu yuuxu ne waaw dañ may intimider. waaw da ngeen ñoo bëgg a jàpp di ñu xoqatal parce que papa n'est plus là Macky n'est plus là papa papa Macky n'est mais mais saa mais soyez des hommes mais góor du yuuxu góor da ngay taxaw nga gérer ko parce que yéen yéen a taxawoon naan ñu force restera à la loi. force restera à la tey la doom neex ndayam. tey la force de rester à la loi te loi bii nga xamante ni moom la ñuy appliquer lu bokk ak seen loi yéen bi ngeen fi amoon parce que yéen loi yaa ma neex ngeen fi defoon la loi du plus fort Salma Fall euh, Salma Ibrahima Fall ligne éditoriale am neexuma dama koy toj ci kaso bi yooyu yéen ngeen doon yooyu ngeen doon def il faut assumer à un moment donné saay da ngeen yi assumer ngeen jël seen biir riig ko ci biir réew mi toog justice def liggéeyam te bàyyi yuuxu beeg kataraay bi parce que yërëmuñu leen te duñ leen yërëm du leen mës yërëm parce que xam nañ ne kenn xoxatalu leen kenn intimidé wu leen déedéet le président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko dañu leen fal pour ñu jubbante réew mi jubal réew mi te jubbante réew mi bokk na ci seen ñaawteef yi ngeen fi def de 2012 à maintenant mu leer ku ci war a gokki nga gokki ku ci war a tëj ci war a tëj kaso ñu tëj la kaso booy wax tëj kaso sax dañ naan kii moom daa yéene kaso ñëpp saa fii kenn yéene fi kenn kaso bu ñu sañoon ñun ñëppay nekk si biti di dund suñu dund normalement waaye ay malfaiteur ay defkatu ñaawteef ñoo xamante ne nekkee wuñ fi dudul rek muucu deretu askan bi xaalis gu ñu am ngeen ne ko tungaaf lekk yéen ak seen ay njaboot mel ni yéen ñu ko gën a soxla pendant sept jigéen ñaa ngi fii di accoucher di dee ndax lan plateau médical yu normalul feebar faju të nit ñi lu ñu lekk tëñu lu ñu naan tëñu liggéey të ndaw ñi ba jamono jii ñu naan ay immigration clandestine ñu bëgg koo jël wekk ko ci ndoddu Bassirou Diomaye fay waa kër dof yi yooyu la ñuy wax des gens yoo xamante ne bu ñuy wax danga naan mais ñii est que est-ce qu'ils réfléchissent en fait moo tax ma ne fii régime bi fi mu ko jàpp foofoo baax na fa delloo loxoom ba mu baax foofoo xasan foofoo xasan Abdoulaye Sylla tamit ma ngay yuuxu di xataraayu moom nee dafa annoncé benn plainte